asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñu ngi delluwaat encore une fois di nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm alors vidéo bi ñu waxoon que démb dinañ leen ko defal tey moo nekk nii. donc benn extrait la ci biir histoire bi nga xam te ni moom la xale bu jigéen bi di nettali parce que daf ñu contacter wax ni day gis boppam ci série bi di maîtresse d'un homme marié. parce que li ci rakk di dund ak li mu dund moom dañ xaw a méngoo alors raconté nañu histoire bi en détail mais vidéo boobu dafa xaw a gudd donc dañ ci jël benn extrait rek di leen ko wan mais xam naa fii ak ngoon incha allah wala suba su neexee sunu borom dinañ monter vidéo intégrale bi pour dugal dugalal leen ko yéen ñëpp ngeen jot ci histoire bi histoire bi nag mi ngi bëgg a yàgg moom jotoon na def benn interview ak benn chaîne bu ñuy wax Kewoulo TV expliqué ci woon problème bi mu dund yépp et d'ailleurs ñu ngi saluer liggéey bu rafet bi nga xam te ne journaliste boobu nekk Kewoulo TV def na ko parce que bi mu amee interview d'abord ak soxna si woo na ki nga xam ni ne moom lañ accusé donc ki nga xam te ne si moom lañ accusé que ni moom moo jëf-jëf ji mi ngi tudd Albert bokkande nekk Liban donc image bi ngeen di gis moom mooy Albert Bokandé beneen image bi ci topp Albert Bokandé la toujours mais fii dafa ànd ak soxnaam Astou Faye d'après ci li xale bu jigéen bi wax et la fille aussi à précisé que Albert Bokandé pour l'instant comme turam siiw na yóbbootul xale yi jigéen ñi ci turam léegi ci turu jabaram la leen di yóbbu muy Astou Faye donc ñu bàyyi leen ngeen déglu extrait bi nga xam te moom la ñu jëlee ci li xale bu jigéen bi wax. am fu ma dem central rek laa laa demagut central laa demagut mais gendarmerie section RSS fépp laa dem kii doon ma defal vidéo bi benn journaliste boo xam ne dëkkut fee français mais xaw ma état la nekk mais dafa tombé woon juste ma ñibbisi mu nekk fi mu defal ma vidéo bi lancé ma ko bu youtube ak si net bi te yàlla tax ci sama dërëm demu ci doon ma jàppale ba jour bi may dem section recherche ñun ñaar ñoo ànd ak benn xale bi jigéen boo xam ne albe dafa lekk xaalisam euh, refule ko mu ne ko yoruma bu may dem albe bokkaan ne ko soo demee ba aéroport boo ma woowee dinaa la envoyé xaalis mu ñëw ba aéroport woo ko albe bloqué ko barki sëriñ Saliou dara gën ko metti loolu mu fii dama dégg Medina gii la dëkk plateau fa la dëkk sama xarit la dalay déggante maa ngi seeni wasal ñoom ñëpp ku ci nekk ñu si des ñu ma ñëw ñi ñëwandoo vacances fii Sénégal ñeen ñi dugg nañ Maroc xëy na lekk ñi dafa lekk seen six cent dollars ñi mu lekk seen trois cent dollars ñu mu lekk seen quatre cent dollars ñi mu lekk seen deux cent cinquante dollars te tegu ko fenn boole ko soo neexulee jabaram mu rëfule la jaay la doole pant pant la ku ci mel ni man ak euh, Mariama Gueye amuñu doole parce que euh, euh, sa doole sa loxo jotul sa ginnaaw say mag yu góor seen loxo jotul seen ginnaaw sa yaay chose te man man maay seen loxo maay seen yëpp jànguma aw ma benn mooy parce que dafa dafa nekk loo xamante boo jàngulee amuloo moyen yenn niveau yu baax yi doo fa egg wala yenn société yi doo fa mën a liggéey parce que jàngoo dafay metti li ma dal moo dal Mariama Gueye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne koo wax comme ku si mel ni man jii sama yaay ay ordonnance liggéey ni min daal parce que mënuma toog ba fii ni may waxee yow damay liggéey min daal di fayeeku ba ci Serigne Saliou parce que usine ñees fële laa dem dem naa mbaaw benn hôtel bu ñuy foofu jaabante fa lu toll deux mois quelques jours mënuñu maa fexe ba jël ma def fa déposé def fa lu ne mënuñu maa jël usine ñees bi nekk petit mbaaw c'est la même chose mu jigéen man nga xàddi nga xaaral ma dugg ci liggéey ñun daal dafi may waxe ga liggéey ñun daal laay def fanaan quinze jours ba quinze jours laay wàcc loolu dara gënu koo metti te li ma ci gën a metti mooy lenn bu fekkee ne woon am naa samay mag yoo xamante ne seen loxo jot na seen ginnaaw du am benn problème mais gor dafa metti li waykat bi di wax rek àdduna gore gor rek a soor na te mooy ndax lu mu metti metti doo bëgg kenn xamal la mais tamit am na yenn yoo xam ne nit ki bu fekkee ne bu ko jàppee wala nga xeeb ko ba dañ ko def yenn yi amul doole dama koy def yenn yi jékkul jaaduwut ndax dañ ne ku ku jurub du ku jullit doo yore sam papa mag la sufa eh, demee liggéeyam demeewut noonu yàlla mi nga xamante ne moom mooy teg laago moo ko teg laago mu nekk ku ku ku ku koo xamante ne mën naa ko wax ne ku gore parce que muy dund di xoole di mën ngay dema dema dem ba mu yàgg eh, say bët gisatut si maxabat la dafa metti loolu rek dafa metti ngay nekk di xool di gis di xool demal sa bopp di dikkal sa bopp silmaxa dab la amatoo fenn foo jëm loolu dara gën a koo metti parce que ku ne xam na ne feebaru gulukum tension bu jaxasoo ak kenn du ko opéré kenn du ko laal loolu moo moo moo moo samay bëtu papa man maa nekkoon ne loxoom te man toujours dama naan rek naa dund di liggéey man soxlawuma dara parce que jigéen laa lu nekk rek yàlla baax na lu nekk yàlla mën na maa dimbali borom kër bu baax wala yàlla mën na maa may ku ma àttan ku ma yërëm loolu laa doon ñaan souvent toujours xëy bébét la boo xam ne suñu borom daa dafa àpp bi jotagu lool man foofu laa mayee àpp bi moo jotagu parce que ngay dund ba mu yàgg di gis te gisatoo dafa metti te di dal sama papa moo dal sama yaay ci may waxee sama yaay tout ça yow glaucome docteur boo ko laaj wala médecin boo ko laaj mu wax la ko tout ça bi 15 jours ñu koy tuufoo tout ça bi mu ngi jar vingt deux vingt deux mille cinq cent ak juróom téeméer te 15 jours yooyu nga bëgg ko ci jënd maanaam weer bi dañ si jënd ñaari tout ça ñu 45 mille chaque fin de mois 45 mille tout te tout bi du fees fees. mais peut être sama yaay lu dal sama papa bàyyi ba tam moom lay bañ mu dal ko moo tax tuufaay bi jurub dund la loolu dara gën koo met sa doom fi mu dem daani doole ñu bunt xatal ko jaay ko doole egg ci kawa rëfle ko mu ñëw toog di liggéey bi ndaal parce que man mënuma toog mënuma toog ndax goo na ne googa rus naa taalal sama loxo di ndax jamono léegi dafa doy waar koo ñaan mu santaag la si dara te doomu goosu ne gor loolu mooy li sonal loolu mooy li sonal la ni kenn mënta expliquer face à face nii la fa demee kon chers internautes lii mooy extrait bi nga xamante ne si moom la jukkee ci li xale bu jigéen bi wax mais des na leneen loo xamante ne si moo gën a gudd et c'est expliqué en détail vidéo bi incha allah bis bu noppee fii ak ngoon wala suba incha allah dinañ leen ko dugalal mais pour tënk tuuti ci mbir yi ni mu demee d'après information yi ñu jot a jot ci ndaw si di wax ak quelques vidéos yu ñu jot a seetaan mooy ko waa ji dafa nekk Liban da leen di dig foofu liggéey def ay pexeem ba yóbbu leen mais buñ fa xasee ba yegg nag na muy dunde ak ñoom moo doy waar. ñii nee nañ jël na seen xaalis ñii ni da leen a sàkku dafa yegg seen kaw moom nag bi ko journaliste boobu interrogé weddi na wax jépp man nag mënuma jox kenn dëgg parce que xawma li xew li xew yàlla moo ko xam ak ñoom ñi nga xam te ni si ñoo ko dund mais juste moom dafa ñëw am na lu ko naqari mu bëgg ko jàllale mu contacté ñu moo tax ñu ne nañ ko ko jàllaleel comme saa bu ko defee kenn ku ne loo ci xalaat nga wax ko kenn ku ne loo ko mën a dimbalee également nga def ko parce que ku dégg audio bi xam ni carrément moom muy di wax sonn na trop mais benn conseil laa amoon pour jox ko ñi nga xamante ne si ñi ngi ñuy dégg dégg la naam dëkk bi métti na mais tamit képp kuy génn di wuti liggéey na nekk ci condition yu wóor mais benn nit toog fële ni la naa la defal lii naa la defal lee xamuloo ko musoo ko gis musoo ko dégg nga wóolu ko yëkkati sa alal jox ko benn mën na la nax mën nga ko jox sa alalu pat dootoo ko déggati ñaar mën na la yóbbu ba foofu nga dem mu jëf la fa jëf ju bon te su boobaa tamit doo xam foo koy jooyee exemple yi bëri na fi trop bëri na ay nit ñoo xam te ne nax nañ leen ci kaa yu mel nii te ba léegi du mujj fenn donc yéen ñi nga xam ni ne yéen ñuy bàyyi xel. message boobu lañ leen doon lancé que lépp lu ngeen di dugg na leer fépp fu ngeen teg seen tànk na ngeen xam lii lu mu doon parce que nit moo lëndëm man la leen ñëw ubbil la seen kanam di wax ak yow normalement ba nga yaakaar ni kii moo gën ci àdduna bi mais bis boo demee ba yegg ci ngay door a comprendre que man kat kii nii li mu doon def lépp dama doon kàmbal rek donc day leen moytu bu baax di xool fi ngeen teg seen tànk. parfois nag dinañ comprendre seeni situation moo leen di pousser pour ngeen bëgg a dem daan doole liggéey mën a dimbali seeni waajur comme ni ko soxna si waxee ci vidéo bi am na ñoo xamante ni seen kër yi ñu ngi dund loo xamante ni dañuy bëgg kut koo kut am ba mën a teral seeni waajur mais tamit ñu bañ di yàkkamti suñu àdduna parce que yàkkamti mën na la tax a def loo xamante ni ëllëg da koy réccu ñu jël lépp teg ko ci loxol borom bi te xam ni lu jot yomb te kenn ku ne li nga war a am ci àdduna insha allahu dinga ci jot alors message boobu lañuy ñuy lancé ñi nga xam ne am nañ yéene def lu mel nii képp koo xam ne si bëgg na tukki muy góor di jigéen na doon ci lu leer nañ parce que également noté nañ fi ay cas yoo xam ni suñuy frère yu demoon Libi dund fa lu metti gis nañ vidéo yi ci net bi et tout alors mu nekk exemple yoo xam ne war na mën a yeew ñu bëri mais dañu gis ba léegi cas yi day continuer du am dëgg la sax bëgg ngeen a génn ba ngeen a liggéey ba ngeen a teral seeni waajur mais tamit ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla ngeen bañ ko yàkkamte xam ni lu jot yomb te ngeen jël exemple ci ñi nga xam ni génn nañ dem dund fa lu metti war na mën a tax kenn ku ne nga moytu bu baax a baax a baax xool fi ngay teg sa tànk donc tey vidéo boobu la ñu indiloon di wax aussi tamit képp ku ci am xalaat nga def ko ci commentaire yi wala comme neex tamit mën nga ñu envoyer message ci whatsapp bi donc ñi ngi tuubaat di jégalu ñëpp encore une fois di leen jox di daje ci beneen vidéo à bientôt